Jotali point moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey Jotali point net vous êtes au cœur de l'info mën ngeen ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck dalee nag jàmm ñoo ànd xëy yér yéen kaay ñu xëyee ndooy yéen kaay gii di l'info sud quotidien le quotidien l' observateur ñu xëy di xibaar naan ñu tey la njiitu mi di président Macky Sall woote ab sa jam ñaajo ngir ñu waxtaane la ñu la kan lay dialogueel Macky ndax candidat yi nga xam ne ñoo nar a dem ci élection yi maanaam fukk ak juróom-ñeenti candidat la fukk yi ak juróom benn nee nañu amuñu lenn loo xam ne dinañu ko wax ak Macky Sall maanaam nee nañu ñoom jaleegi wuñu tey jaleegi ndax Macky Sall élection yi mu dàq da ko wut a dàq tegu ko fenn yéen a kaay gii di l'info yi nga xam ne nee nañu Macky Sall du ñu ñëw ci dialogue bi ñi ëpp ci société civile bi ñoom tim nee nañu maanaam du ñu dem si dialogue bi bi ñu ko xoolee lu toll yoo xam ne ñoom du mooy yu nañ moo tax journal bii di l'info xëy sabab laa ca nee na Macky Sall mi woote ab dialogue tey jii kan lay dialogue la yéen a kaay gi nee na yi nga xam ne ñoo nar a dem ci élection yi en fukk yi ak juróom

bëgg mooy candidat yi nga xam ne dañu leen a éliminer maanaam yi ñu recalé ñoom jamono ji li bëgg maanaam mbir mi yëpp ñu daal koy commencé waat reprendre que à zéro la bëgg mbooleem loo xam ne jëm na ci élection yi maître Mame Adama Guèye ci biir journal bi ne leen tàyyi leen ko loole nag bu mu jëm kaw caaxaan baaxul ci réew mi am na lenn loo xam ne mënta nekk reprendre élection yi loolee moom lu impossible la kàddu yu avocat bii la di li nga xam ne mooy processus bi loolee bu ko kenn xaar ci réew mi ndax mënut a nekk ministre Seydou Gueye ci biir journal bi daan nay wax ne ñi nga xam ne ñoo taxaw ne du ñu dem ci dialogue bi ñooñee du ñu ay nitu jàmm te bëgguñu jàmmi réew mi loolee kàddu yu Seydou la ndax nee na ñi nga xam ne ñoo taxaw ne du ñu dem ci dialogue bi ko fenn dialogue bi képp ku bëgg jàmmi réew mi ci dialogue bi dem loolee moo tax moom Seydou Gueye nee na ñi nga xam ne ñoo taxaw daal di fipp ne ci dialogue bi ñooñee duñu ay nitu jàmm bëgguñu jàmmi réew mi aji mbergaan kanute ci biir journal bi daan nay wax ne crise yi gën a rëy ci àdduna bi yëpp maanaam toog ci taabal moo ko daal di réglé yéenekaay gi ko di jeexee duñu xibaar nañu opposition bi niki démb amal nañu deuil national maanaam dëjël nañu élection yi ministre Abdou Karim Fofana la ñuy amal du sama date du seenub gi di point actu yi ñu xëy fekk fa maître Amath Thiam mu mel ni kuy tontu Abdou Karim Fofana daan nay wax ne Macky bu proposé waa conseil constitutionnel ab date boo xam ne si la amal élection yi bu conseil conseil constitutionnel gisee ne Macky Sall dafa violé constitution bi maanaam conseil constitutionnel am nañu sañ-sañ daal di dàq bi leen président Macky Sall proposé ndax date bi avocat bi dafa jàpp ne date bi du datu Macky Sall date bi datu askan wi la yéen kay gi di Walf Fadjri Déthié Fall daan nay wax ne président Macky Sall jamono ji li mu bëgg mooy féewale opposition bi daal leen di diviser waaye nag dialogue bi nga xam ne woote na ko képp koo xam ne dem nga si dialogue populaire xëy duñu xibaar naan ñu réeroo am na ci lu jëm ci wàllum dialogue bi njiitu réew mi président Macky Sall woote yéen kaay gi de l'observateur xëy duñu xibaar naan fukk ak juróom benn candidat yi ñoom tey jii danañu saisir conseil constitutionnel maanaam bu 11 heures jotee maam buy jaaw ci biir journal bi daan wax ne Macky Sall dafa war a respecter dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel joxe na ko yéen kaay gi de la tribune Cheikh Yérim Seck daan ni mu dàqee élection yi moo baaxul ndax avant dàq waroon na cee waxtaan yéene kaay gi délibération maître Sidiki Kaba ministre de l'intérieur daan nay ne fukk ak juróom-ñeenti candidat yi am nañu audience tey ji ak Macky Sall ca palais ba waaye nag fukk ak juróom-benn candidat yi ñoom weddi nañu kàddu yu maître Sidiki Kaba yooyee ndax nee nañu amuñu benn toogaay boo xam ne dinañu ko amal ak Macky Sall yéene gi di quotidien yor yor be xëy diñu xibaar nañu ñaari A ou par B gi di direct news xëy diñu ba léegi pënd bi wuréegu la Cheikh Yérim Seck nee am nay candidat yoo xam ne ba léegi amee nañu ay double nationalité journal bi di Direct News nee lu jëm ci double nationalité bu Khalifa Sall ba léegi njaw ma ngi wéytade su xam waaye nag li gën yomb ci Khalifa Sall mooy mu publier maanaam décret bi nga xam ne mooy wane ne nekkatul français loolee moo gën yomb te nag procureur war naa auto-saisir ci lu jëm ci dossier Khalifa Sall ndax journal nañu Khalifa Sall nekkatul français yéen a kaay gi di direct news xëy dañuy xibaar nañu mbir mi li ko yombal ak li ci gën a yomb mooy Khalifa Sall na publier décret bi nga xam ne mooy wane ne nekkatul français ndax nag weddi xuuxaan tekki tubay yéen a kaay gi di lay si ko xëy dañuy xibaar nañu réeroo am na ci biir Pastef ci lu jëm ci wàllum dialogue bi ak amnistie bi nga xam ne ñoo ngi koy tudd di tudd Ousmane Sonko Imam Dramé bokk ci doomu daara yu Pastef daan nay wax ne Pastef dafa dem ci dialogue bi Ousseynou Ly di membre Pastef ca na yëkkati kàddo daan nay wax ne mi nekk kasu bi dafa war a nangu ñu daal di koy libéré moom Ousseynou Ly daan nay wax ne bëri nay yoo xam ne active société civile bi Macky toog ci bopp réew mi moo leen gënal Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye daal ba pare sampab laaja nee na Sonko a vendu le projet mbaadu Ousmane Sonko dafa jaay projet bi ngir génn ci kasu bi loolee journal lii quotidien ñoo xëy di ko laaj ndax nee ñi nga xam ne ñoo gënoon a maanaam ñi nga xam ne dañu ko Ousmane Sonko jamono ji ñoom ñoo koy seddal ba mu seddu guyo ñi nga xam ne ay pro Diomaye ñoom jamono ji ànduñu ci lu jëm ci wàllum dialogue bi yéen kay gi délibération ñu xëy fekk fa Jibi mi nga xam ne mooy chef protocole bu Ousmane Sonko daan nay wax ne li nga xam ne mooy dëgg ak li patriotes yi war a jàpp mooy Ousmane Sonko jamono ji gi wut ak Macky Sall tey dialogue gi wut ak Macky Sall ëllëg loole mooy dëgg leneen lu ñu leen wax la ci ginnaaw dëgg la yéen kay gi de l'info xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi seeni mbokk famille détenu yi samedi yi nga xam ne moom la ñu génn doon nañu amal amal rassemblement ca rassemblement ba yëkkate nañu fay kàddoo nee nañu soxla wuñu yërmande Macky Sall nee nañu tamit soxla wuñu amnistie bu Macky li ñu soxla mooy seeni doom ñu daal leen di ndax defuñu lenn nañu ci dialogue bi tey ànduñu ci dialogue bi ëllëg li ñuy sàkk mooy jamono ji ñu amal ay élection loolee famille détenu yi ñoom ñoo ko xamle ñoom nee nañu régime Macky Sall bi maanaam nguuru Macky Sall gi doxuñu ci dëgg maanaam ay hors la loi lañu nee nañu nag a fàtte maanaam souffrance ak jafe moo leen ko teg ak toroxtaange gi nga xam ne moo ci am ak ku mu amul ndey ak parparloo gi nga xam ne nemmeeku nañu ko ak ñu bari ñi nga xam ne ñoo faatu ci nguurug Macky Sall gi ñi nga xam ne ñooy famille xam ne ñoo nekk ci kasu bi defuñu xaali wala kasirana ba ñu leen di dugal ci kasu bi yéene kaay gi dale ko nee na avocat yi maître Ngagne Demba Touré ñoom danañu introduire ab recours daal di saisir chambre bu cour d'appel ndax avocat yi maître Ngagne

bëri na ci faatug bay di amara waaye nag ñi nga xam ne ñoom la nekkandoo la ca appartement boobu jamono ji teg nañu leen loxo ñoo ngi ci garde à vue. moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi yu wóor yu mën seen liggéey Jotali point net mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck